làmb moo la gën a mu nekk doon lim ay na wareem muy Balla Gaye muy ñëpp danoon waa moom rek moo si doon tey il fallait que lii mu jël ko pour mën a matale parcours carrière day nag mu cher waaw mais dafa jël coup violent jël coup violent mais ñu mel seen combat comme laa lay wax seen bëri dafa jiwoo Eumeu Sène soo demaay moom dafa bëri ak Modou Lo seen bëri daa jiwoo ci bëri simple dafa jiwoo ci bëri dóor loolu day am ci bër seen bëri moo ci woo waaw ku xam bëre xam seen ñaar échange ñaari bëri nga xam ne à tout moment rek mu dafa am avantage bu si kaw Eumeu Sène waaw ndax bee dama ne ko Modou mu ne waaw ma ne ko coup nga doon Eumeu Sène bee passé ko door pour gaañ ko ma ne ko premier coup def ci loo am bay bi day bu ñuy bokk bee boo duuree dara day mos loolu la appliqué doo ko def pour bi marto marto da nga marto kon marteau électrique nag waaw moo moo tax man bëgg naa mbër bi ay juutal na laak lee non ñi ma toogal damay leen sëriñ bi ma gis mu ñëwee nii nii nii nii ak nekk tey Modou boo a ah dina jafe mu daanu tey man li wax gars yi toujours rek dinaa Modou yow nekk si di nelaw boo ko yeewoon kon di nga tukkal àdduna wallaay asim nekk ci di nelaw mu ko dinaa ko lii boo ko génnee mu tukkal àdduna waaw après combat bi nag Modou xam lu war a ngay xool mooy bomb